الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك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 wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara tey amaat mbégte mu yaatoo yaatu tam ñëwaat ak yéen ki seen jotaay bi ñu tuddee njàngum mbindum alquran te chaîne youtube yaatal mbindum alquran di leen ko baaxee ngeen baaxoo cee ànd ak seen mbokk Serigne si la Dramane muy jotaay am solo yoo xam ne li ko tax jug rek nit ñi nga xamee ni jotuñoo dem daara ñu man di siifur jotaay bi di xam nu ñu war a bindee alxuraan mu rafet ak nuñ ko war a bindee mu jub di sant bu baax itam suñ partenaires yi nga xamee ni ñoom lañ ciy àndal muy waa ADS ak mbay et ak ak Firdawsi ak waa Mondial Karo Sëñ Mor Dieng tey nag incha allahu taala ñu fas yéenee jàngale barab yi nga xamee ni noon kenn du ko fi maas la jiitu woon jàngale woon nañ barab yi nga xamee ni noon danga koy maas te waxoon nañu xaraf ya nga xamee ne bu ci sësee mooy waral loola tey nag kon sunu bindub tey mi nga war a jëm ci kon barab bi nga xamee ni insha allahu taala bu fa nuun dikkee kenn du ko maas ndax xaraf wa sës moom moo tax insha allahu taala kon mbokk yi tey sunub jotaay ni ma ko waxee léegi ñoo ngi ko war a jëmale ci xaraf yi nga xamee ni bu sësee ci noon noon foofa kenn du ko fa maas loolu nag mag ñi daan nañ ko tënkee ci sàkka xajada fa tabala muy siin wala kaaf walla xaaf walla jiim walla daal walla faa wala taatombe wala li ñuy wax baa wala laam kon xaraf yi lu ci dend ak noonu rekk mays na ko bañ a maas moo tax ma bindal leen dara ci alxuraan ñu àndandoo maas ko jàngandoo ko xool ba xam xaraf yi nga xamee ne tudd naa leen léegi te ñu dikk fii ñu xool nuun nga nuñ ko fay maase dama leen a bindal ataamuruna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taaqiluun muy aaya joo xamee ni mi ngi ci suuratul baqara bu nu koy maas mu ngi defee a ah, taa mu ruu na daa di indi suq gi daa di maas noon gi sàdda ko def baa def àll def bel birri def wa ta nga di taxaw léegi kon noon gi kon duma ko maas waaye dama koy tëb jàll ko damay def sa aw na léegi lii sabab bi tax kenn du noon kenn du maas noon gi nga xam ni boo doon bind tey boo ko maasee daanu nga ci misaal tey boo bokkoon ci concours yaatal mbindum alxuraan bind ba agsi ci tan na daal di maas noon gi loolu loolu ab jéelu lay doon ci yow ndax siin gi ci tege moo tax wari si koo maas bu doon ci almu tajwid lañuy ñuy jàngale boo doon jàng noon gi fi ne doo tudd nuun gu leer goo xamee ni ku la dégg day xam ne ànd nga wax dangay ngay wax ataamuruna naasa bil birri wa tan doo wax wa tan parce que nuun gi parce que siin gi ci tege moo tax kon bokkut ak kon ba ca ayin tege nga xam ne bu ba ci ba ci ba ca ayin tege woon da nga naan am ta ju nañ ñi ki lay dégg xam ni an nga jàng waaye jàngoo ang kon noonu fii siin gi ci tege moo tax kon wari sa ko maas te daa bokk ci sàkka xajada fatabala encore ñu daal di jàll ba léegi ñëwaat anfusakum moom tamit gis nga ni damay ñëw maas aji daal koy tëb moom mii ñëw maas fugi sa kum loolu itam ba léegi liñ ci jàngiwaat rek mooy ba tey faag yi daa bokk ci xaraf yooyee nga xamee ni bu nu sësee ci noonu kenn waru koo maas nga xam ni moom it boo doon bind ci alxuraan ba ba maas ko loola ab yëll la moom mii itam boo doon jàng almu wit di ko jàng moom tamit doo tudd fii ànd gi muy leer da ngay wax wa tan saw na an nga xam ni kiy dégg du dégg ci yow ànd ju leer naññ ndax li ko waral mooy faa yi dafa bokk ci xaraf yi nga xamee ni bu nu dendee ak noonu noonu lañ ko war a jànge ba tey ñu continuer ba léegi def wa antum moom it gisaat nga ni kon nuun ñëwaat na waaye fii itam kenn maasu ko fi ba léegi li ko waral mooy taa tombe ji nga xamee ni moo ci tege te bokk ci arafi sàkka xajada fatabala kon moom tamit kon kenn du ko maas ndax taa ji moo tax ba tey boo ko doon jàng itam wa antum ngay wax waaye doo wax wa antum ju leer nañ loolu bu doon ci taj tajwid la da ngay daanu bu dee ci bind yitam boo ko maasee dangay daanu kon kii siifur jotaay bi tey xool gis na ni kon li ma jote bind kon indi naa fi ñetti xaraf yoo xamee ni ba ñu dendee ak noonu kenn maasu leen léegi nag ngir tënk bu gaaw rek kon jàppal ni ko ñetti yii ma jot ko tudd foo ko fekk ci alxuraan ak ak lu mu bari bari bari bu ca bu bu dendee ak noonu noonu googa kenn du ko maas loolu mooy règlement bi nga xamee ni moom la war a bindee. ndax loolu boo ko dee jàng ci tajwid wit nga ko jàng mu leer mooy waral itam ci bind yi itam doo ko fa maasaale te boo ko defoon itam daanu nga kon tudd naa kon ñetti xaraf ci xaraf yooyu am na itam beneen xaraf muy baa baa tey jii bu sësoon ci noon foofu itam am na nu ñuy maase noon nga noo xam ni du bokkut ak yii ndax fi ne tey soo bindoon mim baadikum ba won la ko nga gis ko min di ci misaal min di tey boo ko doon maas boo defee nii fii da nga koy def lu mel ni ak noon gu ndaw miim gu ndaw daal di def nii lu ko waral mooy baay yi nga xam ne da cee topp te bokk ci xoroofi sàkk xajada fataba la kon fii boo ko dee bind nuun gi doo ko maas waaye ak miim gu ndaw mooy na ci kaw loolu ci taj tajwid moom lañuy ñuy wooye mooy wëlbati mooy da nga wëlbati ak noon def ko muy ak miim nga xam ni boo ko dee jàng dangay wax miim mim baax di ngay wax ndax miim gi ngay jàng waaye dootoo jàngati noon nga kon loolu kon ba tey itam ci barab yi nga xamee ni kon eh, xaraf yooyu da cee tegu ba nuun mii itam am na foo xam ni itam bu ca lu mel ni ak raa toppoon raa foofa itam dangay ngay fopp la nga waroon a maase nuun ga for ko daal koy dugal ca ca xarfu raaga daal koy sàdda nga xam ne su boobaa doo jàngati miin waaye mir ngay wax ma jox la ci misaal tey boo bindoon mir rabbikum min rabbikum tey boo bindoon min rabbikum soo maasee kii da koy bàyyi noonu ki doo ko maas waaye dangay ñëw daal di sàdd kii nag léegi muy min rabbikum nga xam ni kon moom doo jàng jëmmi noon gi waaye raagee ci tege moom ngay sàdd ba noppi nag léegi jàngee ko ko daal di wax mir mir rabbikum nga xam ni boo doon def tajwid wala ngay concours ba ñëwoon daal di wax min rabbikum loola fi ne sab jëll la boo doon bind itam ñëw maas ko itam sab jël la kon daal alquran ay xarafa ngi du yëpp waaye yenn la ci yi nga xamee ni bu ñu dendee ak noon danga koy bañ a maas waxa naa ci ñetti barab yi nga xamee ni doo maas noonu ko aslan waxa naa feneen foo xam itam da da ngay wëlbati noon nga def ko ak miim fii itam ma ne la da wëlbati noon nga daal di koy jànge ak raa ba tey des na itam ci xaraf yi daal daal ci misaal tey boo bindoon min duunillaahi min duunillaahi moom tamit nuunam googee doo ko maas ndax daal daa bokk ci sàkk xajada fa tabala moom tamit kon soo ko maasee rek daanu nga moom tamit boo ko doon jàng doo wax min duunillaahi ju leer waaye min duunillaahi ngay wax loolu ci ñi nga xamee ni dañuy jàng tajwid ñoom ñoo koy eh, jëfandikoo kon tey fii ñu ñu liñ ci jàngale rek ci mbind mi mooy ki nga xamee ni yaa ngi bind alxuraan te bëgg nga bindin wi jaar yoon kon daal foo gisee ak noonu daal tegu ca waroo koo maas te boo ko maasee itam loolu ab jël lay tudd ci mbind te itam ku xool sa mbind itam dina xam ni yow mii sa wattu alxuraan des na ndax bu ñu nee mokkal mooy ko mën a tare te doo xool waaye bu ñu nee wattu nag mooy koo xam ne mën ngaa bind mbindeen wu jaaru yoon woo xamee ne fa war a maas dina maas la warta maas du maas la war a xëcc xëcci lañ war a aj ñu aj ko la war a sax ñu saxal ko loolu lépp kon mooy li nga xamee ni mooy tegtale ak wartu ak lee di njàng ma nag ak ak ak tariba di tegtale ak euh, mokkal kon mbokk yi nga xamee ni yéen ngi doon chiffre jotaay bi te doon ànd ak ñun tey kon dégg ngeen sunu bindub tey mooy lañuy wax sàkk xaja dafa tabala mooy xaraf yi nga xame ni daal euh, bu ñu jiitoo noonu noonu foofa kenn du ko fa maas te jot naa ci indi ay misaal Eh, yu jot a bari jot naa ci indi eh, siin indi naa faa indi naa taa indi naa itam baa indi naa itam raa indi naa itam daal kon ñoo ngi sant bu baax a baax sun mbokk yi nga xamee ni moom lañuy àndal ci émission bi mooy partenaires yi nga xamee ni mooy mooy gungente ak ñun muy waa ADS Mbaye et Frères ak waa Firdawsi ak waa Mondial Karo di leen jox daje incha allah taala ba beneen jotaay wasalaamualeykum alekum rahmatullahi taala wa barakaatu. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون